والصلاة والسلام على رسول الله بكي نبوك سنت برمب سبحانه وتعالى شعرنا من بين برمب ولا جام بدون مم نعي بارو أخ نب تدرين بارو أخ تينيان سن برام بوك نيجي نب بوك يسون خب بتايم نينكو جلتي نينكو جمي نينكو جمي تي أمانة الخول والعمل سمو sa kaddu ak sab liggéey mooy moom lañ tudde amaana amaanatul xawli mooy maanaam sàmm sa kaddu ci wolof mooy sàmm sa kaddu bu dee amaanatul amali mooy sàmm sab liggéey doomu aadama boo gis ci kaw suuf lim am mooy kàddoom su ñàkkee kàddoom amatul dara moo tax ab julli dafa war di sàmmi kàddoom ab jullit dafa war di sàmm kàddoom saa su lépp luy wax rek bala mu ko waxit mu xool la muy wax ndax lu muy man la wala lu muy jëflaw wala lu muy jëflaw bokk yi bokk na ci li gën a feeñ ci feeñu waayu diine lislaam ak jukko yi nga xam ne tamit bokk na ci jukko yi gën a yitteel lislaam mooy jukko yi kóolute amaana mooy kóolute mooy xulqul amaana mooy jukkoy kóolute jukkoy kóolute yooyu nag mooy yi nga xam ne mooy tabax am réew mooy tabaxit ab dëkk mooy taxit mooy defarit melokaanu doomu adama amul benn la benn réew boo xam ne réew ma mën naa avancer lu dul ñoñ réew ma sàmm seen i kàddu benn réew bu mën a avance lu dul ñoñ réew ma sàmm seeni i benn réew tamit mënta am ndëgër laay lu dul ñene ca dëkk réew ma cay jëflante sàmm seen i kon mu mel ni sàmm kàddu ci doomu aadama muy amaanatul xawli lu am solo la moo tax ñi nga xam ne ñooy njiiti réew yi responsabilité bi njëkk a yor mooy na ni sàmm seen i kàddu lépp luñ waxit ñu fas yéenee jëfe loolu ñi nga xam ne ay politiciens la ñoom it ñu sàmm seen i kàddu ci seenu askan bàyyi digg bu metti bi te duñ ko def bàyyi wax loo xam ne yow bëgg a falu moo tax nga di ko wax waaye bir na la boo fala doo ko def te li ëpp ci politiciens yi saa yu campagne jotee ñuy campagne loolu ne la ñuy wax waaye ku fare fàtte ña ña nga xam ne ñoo la fal loolu nag ñàkk sàmm sa kàddu ci la bokk jamono ji ñu toll nag nga xam ne daanaka léegi ñu dem ci ay élection lu waay mën a lu waay bëgg a wax da nga ko wax lu waay mën a diggee da nga ko diggee waaye bis bu la falee jox la réew ma wala jox la mairie ba wala jox la quartier ba daanaka ña la faloon wala ña la wateeloon ñu gis ci lan waxoon la nga waxoon ci nga jëf kon julli day sàmm kàttan moo waral sun borom wax ne maa ngi la ñuy na ngeen ni delloo amaanaat yi amaanaat amaanaa ji dafa am ay façon mooy dénkaana yi wala kóolute yi dee leen ko delloo ci seeni borom waaye nag su ngeen di atte su ngeen di atte na ngeen atte ci ak maan kon loolu moom justice yi ñoo ko moom ak ñi nga xam ne ay kilifa lañ ba noppi di atte se ñeen yëlif ñooñu am nañ ci responsabilité bu ngeen yi atte na ngeen atte ci maandu atte ci maandu bokk yi lu am solo la waaye atta ci parparloo loolu diine da ko santaane ko noo ngi jaajëfal ci benn vidéo bu ma gis sëñ Ibrahima Mbay bu maam Cheikh bu bu sëriñ Mbay ci kaddu yu am solo lu mu wax benn politicien bu fa ñëwoon bari ci dem kaddu yooyu wër na àdduna bépp bokk yi loolu lañuy xaar ci ku yor kaddu kil kër wala kaddu kilifa wala kaddu woo xam da nga ko war wax nit ki ak nu mën a toll ak pouvoir bu mu mën a yor dëgg rek kay dëgg su dëgg wax dëgg jotee moom danga koy wax waaye Cheikh Ibrahima lu am solo la wax ne ko ñetti kàddu yi ma lay njëkk a wax mooy dund bi cher te askan wee wax askan wee wax te ku ne xam ne ne dund bi cher na courant bi kazalik fi mu nii woyefal bi ñu doon wax woyefal fi mu toll tudd woyefal léegi lu mu tudd mooy jafeel mën naa koo tudd jafeel woyefal tudd daa daa gën a diis diisal la tudd boobu woyefal léegi diisal la tudd woyefal ku ne xam ne ne courant bi yokku na kon dund tamit cher na kon woyefal diisal la tudd léegi tudd tuddatul woyefal Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima wax wax xamal ko noo ko nag dund jafe-jafe bi nga xam ne moom la askan wi jaaman bi ci jiitu mooy dund te kam doon waxal mooy premier ministre bi muy benn ñaareel ba mu ne ko suñ doom yi di jëm ci gaal kon nan fexe ban ban ba nan toogee ca ci ci dee waaye bi ci gën a bi ma ci gën a amaliteel mooy justice bu socialu nga ko justice suñu réew mii dafa socialu nan fexe ba justice bu social justice nag bu socialu mooy kumba am ndey kumba amul baay te gis ngeen li ñu dund ci réew mi kumba am ndey kumba amul baay la ñu dund ci réew mi ab justice nag bu bu socialu la ka neex rek lay àtt kaddu si Ibrahima Mbaye googu bu bu siñ saam doñu doom siñ saam jooju kaddu gu wër adduna bi la ci am njariñ moom de bu sëñ Sam dellu si woon du soppi dox du soppi toogaayam du soppi doxwaayam bàyyam ku ne xamoon na ci diine ci lislaam bi ak ñeme dëgg gi mu dëgg daan ko wax loolu mooy amaanatul xaw kaddu da nga kaddu da nga koy wax ci yàlla rek tax wuti ca lu muy seet ka fa toog lu ko neex wala di ko tàcc wala nangam nang dëgg ci askan wi di dund ak li am ci biir askan wi la na ko fang mu di ko dégg ba bu ëllëgee bu fa jugee xam amaana mu jëf ka amaana mu ñàkk kaa jëf loolu la ñuy ci xaal responsabilité bu yor kaddu kër wala nga yor kaddu diine wala nga yor kaddu lislaam waaye melet yi ambula bi tëj sa giñu tax nga bañ a wax bu àllëgee ngir dëggu yàlla ngir ngir nga nopp ci dëggu yàlla gi ku koy def sa yor responsabilité bu àllëgee yàlla dana la ko laaj nañ ci bàyyi xel kon amaanatul xawli mbokk yi moo tax suñu borom wax ne yéen su ngeen di att na ngeen atta ci maandu na ngeen atta ci maandu mbokk baat boobu nag muy amaana mufassiruna yi dañ koo séddale ci ay xaaj bu jiitu kóolute sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala mooy lépp loo xam ne ahd la mooy daal bu dox sa diggante sa borom nga fas yéene koo jëf mooy di jëf ndigali yàlla yi tey matindu ko tere suñu borom subhanahu wa waaye nag it machaayir yi nga xam ne sa cër da koy yëg ca muy machaayir yu am njariñ yëguwaay yu am njariñ yoo xam ne dalay lay jegeloo sa borom loolu amaana la ci nga def ñaareel bi mooy amaana bi dox sa diggante doomu aadama yi yow jullit bi doomu aadama ak moroomu doomu aadamaam kóoliteef gi dox sa diggante ak moom nit ki la ko war a sàmm bi ci njëkk mooy nit bu la dénkee alalam ba soxla alalam nga delloowaat ko alalam ak lu mu la mën a dénk nag léegi-léegi nag gaa yi ci boppam dañuy yàkkamti ku leen dénk ban jëfandikoo lañ leen dénk nga ba di ko soxla leen ne dénk mu naan nag xaaral suba suba danaa ko lijjanti nit ki bu fekkee nit laa wóolu ba dénk la alalam yow jëlal alalam nga tegal ko ci barab ndax xamoo kañ la koy soxla loolu amaana la boo xam ne diggante doomu aadama la ak moromu doomu aadama mooy fexe ba di delloo yi nga xam ne ay wada ay leen bokk na ci tamit mooy ñàkk a kooj mooy xëcc ci say wax ak ci say jëf mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy jëflante ak doomu aadama bi nay lu leer bu dee jaay ak jënd bu ca xaj yi ak xilaa ba am neexul làmmiñ ba tax nga jaay ko ca la ngay wax dara du ca def nangam la ca la ngay waxe du nangam bu mu ca bañaam na ca bañaam na ca bañaam bu dem soow la nga rax ko ba bam ba ndox ma bari nga ne ko lépp soow la fekk na ndox ma ëpp soow ma yooyu mooy xis bu dee xadi bu dee xilaaba ak xadia mooy maanaam neexul làmmiñ ak war ci ci ngay jaay léeg-léeg nit aw làmmiñam lay jaay waaye waaye la muy jaay dara bu ca dëkk original la du original fekk farce la original la te fekk na farce la baax na fekk baaxul amul sikk fekk am na sikk xam nga sikk si bëgg koo dem yooyu yëpp ay amaana la yoo xam ne diggante jullit bi ak mbokkum jullitam la na ci bàyyi xel beneen bi ci des ci diggante jullit bi ak mbokkum jullitam ci tënk mooy di nëbbu secret bokk yi nit bu dikkee wala secret nëbbal ko secret waaye nit ki ñëw wax la secret nga dem li ca nettali ko kenn ca nag ah, sa waaye kat dana mën bu ko kenn yëg kon nag yéen bu ko kenn bi léegi mu kon nit bu ne waxee secret nëbbal ko secret gaa yi ne kenn bëtu secret jàmm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon bokk na ci ñi gën a bon place ëllëg yowmal qiyaam akbar borom kër ak soxnaam kenn ku ci nekk wax sa sekkaray morom borom kër ba dem wax sekkaray soxna sa soxna sa dem wax sekkaray borom kër ba moo tax borom kër ak soxna li li ñuy waxtaane ak sekkare yi séq kenn warut a dox ci mbedd di ko dégg léegi nag ñoom ñaar bu amee problème kenn ku ci nekk wax sa ay bi morom sullen sullante ko yaa defoon nangam yaa waxoon nangam yaa ma waxoon nangam yaa ma waxoon nangam su boobaa yonent bi sansam nee na ñoom ñaar képp ku ci def loolu bokk nañ te ña bon place àllëg yowmal xam ne akbar kon xibsul amaana xibsu sirri nëbbu secret dafa baax kon na nañu nëbbu nañu nëbbandal suñu biir suñu secret nit bu la wala ba wax la secret bu mu dox mukk di ko gis ci mbedd bi léegi nag daanaka koo ci wax sa secret mu tasaare ko xanaa diw la mu wax la mu def nàngam nangam loolu bokk yi nan koy moytandiku ak yeneen ak yeneen yu mel noonu nit it war naa am amaana ci jëmi boppam moom ci boppam kóolute ci jëmi boppam mooy doomu aadama bu ci nekk bul tànnal sa bopp lu lay lor bul tànnal sa bopp lu amalul tànn la gën a baax yow ak la amal njariñ loolu amaan na la ci sa jëmi bopp bu dee ci wàllu diine kazalika bu dee ci wàllu adduna kazalika li ngay tànn ci diine ji ne doon al aslah wal anfa li ngay tànn ci adduna bi di noonu al aslah wal anfa loolu amaan la ci jëmi boppi doomu aadama bi waaye bul jëf bul jiital bépp jëf benn jëf boo xam ne da la indi loru ëllëg ak loru tey doomu aadama bul jëf na jëf-jëf joo xam ne da koy amal njariñal tey ak ëllëg waaye bu mu jëf-jëf joo xam ne da koy indi loru tey ak ëllëg su boobaa nekkatul amaana ci moom waaye lu koy lor lay doon bokk yi jukkoy amaana buñ ci dee wax rek di ci misaal doy nañu misaal ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam korog bi nga xamee ne su borom digal na ko mu génn dem xaarul xara ànd ak Seydina Abubakar Sadiq Seydina Ali la woo ci lal ña ko doon dénk gëmuñu yàlla ay yéefar lan woon ndénkaane lekk mu ne ko diw moom lii diw moom lii diw moom lii diw moom ci ku dikk na ko jox ndénkam ndénkaane te xoolal xoolal ñoo xam ne duñ ay jullit ay yéefar lan dénk la yow mi woote te yow gëmuñu la yow gëmuñu la yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay woote di leen dugg ci lislaam nanga wuñoo dugg ci lislaam te kuy dénk yow day dikk dénk la te képp ku la dénk lan la dénk bu ko xàmmee bu dikkee nan nga koy delloowaat koro bi Seydina Ali tëddee ci lal bi ñu tëg guddi ñëw bi ndikkee xool ubbi gis ñu fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ci lal bi àll yi ci boppam dafa leen delloo kenn ku ci nekk la la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dénkoon bokk yi loolu mooy kóolu ci loolu mooy kóolu ci waaye ñu dénk la sawaay sa nga ne hé sawaay lii xéewal ñëw na yàlla ñu ne fi xéewal léegi la gars yi loolu la ñu def da ngay soxla da ngay am soxla cinq mille wala dix mille ma dikk ne la ah sawaay doo ma tiim ba suba wala gannaaw suba nga ne yii yàlla ñëw na yàlla ñëw na waaye dénkaan ak jaaro jàmbur yàlla ñëw na dëgg la yàlla ñëw na waaye moomoo li ñu indi ci dem yàlla indi la ko tam moomoo ko dañ laa dénk kon damal denc kon yonente bi saa sama ci misaal ci dénkaane yooyu moo waral du dagan ci ab jullit muy wor moroomum jullitam donte donte donte kam yi wor daganu mu war moroomum jullitam waaye daganu mu war koo xam ne am noonam la am noonam la ab jullit du lor du du du wor am noonam léeg-léeg nga gis ñi ñi ñi ñi tukkikat yi nan ma baal ne ci àll bi di jëflante ak tubaab yi ci alal di war tubaab yi donte du yaa ngay def lu xaraam tubaab bi lebal na la delloo wala nga fekk kalfet jaamur jël ko wala nga fekk nangam jël ko fekk moom dafa soppi ko wala def nangam la ngay def lépp donte moom du ab jullit yaa ngay lekk lu xaraam ba noppi war nga kon ab jullit ab ab jullit du war ab koo xam ne am noonam la wala du war koo xam ne sax du ab jullit kon nan bàyyi xel yéen ñi tukku ci ne ci àll bi ñi ngeen di jëflante ci du ay jullit fexe leen lu ngeen waxante ak ñoom nay lu wóor lu ngeen diglante kun ci la bali na nga fa na nga fay na nga fay donte yéen da ngeen sore te bu kenn fekk alali jaambur loo xam ne du ab jullit nga jël naan lii xéewal la du xéewal de alali jaambur la da nga koo da koo da koo sàcc wala nga jël ko wala nga triyaa ko wala nga def ko wala nga fekk mu sëpp nga sàcc boobu àlligée loolu bakkaar la ci kaw kon loolu jullit dañ koy moytandiku du dagan ci ab jullit muy mu jëfandikoo jëfin boobu moo tax su mboro wax ne ndax du ngeen ragal ci aw nit war waraange ba bana aaya ja jeexe ci muy jënte ne inna laaha laa yuhibbul qaa'iniin yàlla bëggut ñi nga xam ne ay warkat la abi hurayra nee na deel jox addil amaanata ala man ittamanaka deel delloo ndénkaan yi kóolite yi te ki la ko ki ko dénk waaye nag te bul war mukk ki war nit bu la waree bu ko war loolu mooy jukkee jullit yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man ñetti mandarga yi jullit bu mu nekk ci yow ab naafiq nga ayatul munafiq salaata jullit boo xam ne lu mu wax ñu ne du dëgg kooku naafiq la te léegi toog ci garam place sawaay bu bu demee gaa yi wakkante sawaay lépp lu mu wax dëgg wala de waaye lu mu wax ne leen waaw dara du ci dëgg képp kun jullit kun da xam ne yow la wax du dëgg moom naafiq nga ci yow ayatul munafiq salaata ida xadata kadaba beneen bi ci des mooy mooy saa yu la joxee rendez-vous fausité loolu nag moom daanaka jukkee na ma yàlla bal jukkee sénégalais la sénégalais yu bari naa fa ñëw suba bu ngoonee nangam nangam bu ngeen dajee mu ne hee dama amoon nangam damaa amoon nangam képp koo xam ne loolu sa jukko la rek naa fex la nit day fonk kàddoom beneen bi ci mos mooy ku la wóolu nga war ko nit bu la wóoree nga war ko ñetti mandarga yooyu yonent sax sama ne ku mu nekk ci yow am naa fex nga kon ca gëm yàlla lu dul dafa sori dafa sori ak ak wore ak wor doomu aadama moo tax yonent bi saa sama ne woon laa imaana liman la amaanata lahu bala ngaa am ak gëm yàlla nee na day fekk nga am amaana waaye nag wala diine liman la ahda lahu bala mooy day fekk ngay sàmm ahd mooy ko li ngay jari moo waral bokk na ci xiyaanatul amaana mooy waru amaana mooy ci diggante afraad da mu caaw mooy tabaxut mooy bañante yoo xam ne dafay indi ak xëccoo wala ñaaru ñu jëflante maanaam kenn ki bëgg a teg dil moromam li xew ci li xew ci jamono da ngay sus société ki liggéey wala ngeen am lu ngeen seet wala nangam nangam moom intérêt mi lay xool yow xoolu si intérêt mën daal waa ji dama ko bëgg a teg dil wala moo xam ak tubaab la moo xam kum mu mën a doon nga xam ne yeneen gëstu rek mooy jëm koo teg diil lekk ala wala nangam nangam dem yooyu yëpp ay ay ay xiyaanatul amaana la te lool julli bi da ko may ko moro may tundiku bu ne nag baat mooy sàmm sa kàddu nit ki kàddoom da ci war a ragal yàlla bokk yi suñ kàddu yi ñuy génne dañ ciy wax nañ ci ragal yàlla buñ ko wax rek ngir bëgg lu neex doomu aadama yi nan ko wax ngir jëm yàlla bari na ñuy ñékk fii di wax di ngaw te ngaw te ngaw te ngaw te nangam nangam ak ku mën a doon te kaddu ko boo ko diglu da nga xam ne kii àndut ak ragal yàlla léegi-léeg kaddu par par loolu lay doon te tamit kaddu kenn du ci leble wala ñu ci fay bor te bari na ci ño xamné seen kàddu dañ ci leble wala ñu ci fay bor manam bëggoon bëggoon am ko enen wala koo jëlal sibson wala lu bëggoon wax dara jaarloo ko ci biir wax ko yoy kenn du ko def ci biir kàddu kaddu bo koy wax da ci ragal yàlla da ngay wir da ngay wir na yow li ngay wax yàlla képp mo tagg di ko bu ci bëgg ku la tagg bu ci bëgg ku la ngañ li fekk demo ci biir kaddu la sëñ ma Cheikhir may waxoon bu fa ab jullit dafa war a toll foofu maqaafata wa hubbul masxi li shakhsin yujibana kullu xaf dañ sëñ ma seexal bay neena ragal ko la ngañi ak bëgg ko la tag bépp jullit bu mu ne ci yow bon bon adduna ya ko boole ab jullit dafa wara tag ki kay tag nan ko jaa jëf ak ki nan ko ya fi yées ñaari ban neex yoy yam ci mom man nag fofu la toll man Cheikh Abdou diouf jere jëf ak ya fi yées ñoy yam ci man ki may tag ki lay tag bo legge mo lay xass ki lay xass bo legge mo lay tag kon ñaari ban neex yoy bu yemul ci yow bo legge da nga am problème maqafatu zammi wa hubbul madhi li shakhsin yujibani ku la la sëñ ma seeqari bay wax waajur sëriñ sàmbay kon nan gor gor suñu kàddu ñu di ragal yàlla te li ngay waxe na yàlla tax bu ma sàmba tax bu ma demba wax tax bu kenn tax boy wax ak kum wolo ba bari bari bari ak lu kilifa ye bari bari sa kaddu na yàlla doongu tax ki nga ci jëre sourale mo yàlla ki jëre sourale ci kaddu mo yàlla kenen ko ci sourale bu allege man la mere waxal la lo xamne yo yow kon nak nan yi nañu bàyyi waale xel lo bokki fi ni mu mujjantale moy kaddu googu ma la wax nit ci kaddoom yàlla mën na koo boole ci daraja siddiqina boo léegi mën na ko yóbbu àjjana nit ci kaddoom suñu borom mën na ko yóbbu ci sawara jahannama ngir ngir ngir kaddoom kaddu gi mën na ci amee àjjana waaye kàddu gi ëllëg mën na ci amee sawara kon fexeel ba sa kaddu yow nga di ci am nga di ci amee àjjana moo waral doomu aadama bu ci nekk buy wax nay wax lu rafet ca bañ di wax lu ñaaw fii fii ñu toll nag nga xam ne danoo léegi dugg ci politiciens yeeg ñëpp di wax ak ñi nga xam ne ay opposition ak ñeneen ak ñi nga xam ne ay militant lañ di wat ak yu mel noonu nañ jéem a rafetal seen i kàddu xasante bi jëru ko waxante lu ñaaw di jëru ko kenn ku ne wuñ sa awray morom sa sa sa awray morom jëru ko yàlla noppi na ca mooy joxe nguur ca kam koy jox pare na ca kam koy jox pare na ca askan mu ci nek fexelal bu len ñaawoo penc mu ci nek fexel bu ñëw kum neexu kala neex watal ji ko kala neex sopp ko kala neex bëgg ko waye ci njëkk ak ci rofet yàlla nopi na da kay jël rew bu andege jëru xex jëru xulo jëru sànni xeer bu ku fa fàtte na la ñun ala ñi fa fale woon lu ñu defal kenn ku nekk fay gaay ngay fa nek sa bop lek ku lu da jara xex jara waxantalu ñaaw jara waxati nangam yàlla ñu yàlla defal dëggal top yaxfirullahu lana wa lakum wa li muslimin amin